abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kasalodam sidi baram a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-qatim nasir al-hadi وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة بايس ما نقدر لنا بهذا المحضر والتعتفي بنصرة تأتي لنا بسفر السلام عليكم ورحمة الله وعلى يساك خم خم ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ci jiital sëriñ bi Seydina wa Mawlana Baye Ousmane Dieng di ko ñaanal yàlla gudd fan wànd ak wér yàlla jotal ko mboolem càkkute famille ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu maa ngi ziyaara mboolem muxaddam yu barkeel yi nekk ci groupe bi ak mboolem mbokki taalibe yi di wax rek ñu ñëwaat ci suñu eh, darsu nasiha biñ nekkoon di fahasi salaamun bu maam Omar Gada Gada Caam di ñaan yàlla defal ñu ci ubbeeku defal ñu ci tawféex ci barki ba Ismaan waaw kon niñ ko waxe woon rek ne talaata bu nekk dinañ góorgóorlu xool leen ci ay abiyat yi nga xam ne ñoo nekk ci woy bi di faxasi salaamun bi nga xam ne maam Omar Gada Gada Caam moo ko bind woy bi ci jamono ji juróom fukki bayit laam juróom fukki bayit laam waaye nag ci liñ dajeeg ci gëstu ci taarixu nettali mooy woy bi ëppoon na juróom fukki bayit maam Omar Gada Gada Caam moo ko bind te bi mu ko bindee moom mokkalut ko maam Omar Gada Gada Caam daf ko jox góor gu ñuy wax Ali mu jox ko góor gu ñuy wax maam euh, maam Ali Gueye maam Ali Gueye moomu nag moo ko jox ku ñuy wax Baye Makiwe Jaw Baye Makiwe Jaw moom ab gumba la woon ma Makiwe Jaw nag moom liñ ci jot a am nii moom moo ko mokkaloon parce que moom gannaaw gumba la woon te mënutoon a bind moom daf doon jàng wéy bi ci góor gi ñuy wax maam Ali si la jotoon a mokkal lim mokkal ba far euh, maanaam bind bi dafa mujjee lakk wax nañ ne maam Ali dafa mujje lakkale mais maam Omar Garaga Thiam dafa mujjee lakkale ñàkk lépp woy bi liñ ci des ni li ci des ni ñu jor ko juróom fukki bayit yi mooy li nga xam ne Baye Makiwe Jaw moom moo ko mokkaloon parce que ab gumba la woon Baye Makiwe Jaw moomu noonu bokk na ci ñu yar bay Babacar kar Baye Babacar Thiam radiyallahu anhuma moom ci Baye Makiwe Jaw la mokkalee li mokkal noonu kon mu ngi mel ni daal woy bi fu mu ne juróom fukki bayit moo ci des ci liñ yor ñun te wax nañ ne juróom fukki bayit yooyu ñu ngi ko amee ci ndimbal li nga xam ne yàlla feeñal na ko muy mokkal bi nga xam ne Baye Makewe Jaw mokkaloon na ko Baye Babacar Thiam radiyallaahu anhu moom it mokkal ko ci moom kon mu ngi mel ni loolu dina daanu ci waxu suufiyanke bi waxoon ne laysal ilmu fil kutub wala laysal ilmu fil qirtaas xam nekkul ci téere wala nekkul ci kayit ci mbind waaye wala ilmu fi suduri rijal xam-xam moom daal ci dënn góor yi lay nekk kon xam-xam fekk mokk la goo ko rek nekkagul xam-xam ndax fi nga ko bind bu réeree ñàkk nga xam-xam bi bu lakkee ñàkk nga xam-xam kon xam-xam daal euh, feg nekkagul ci euh, ci ci ci dënn rek des naa nekk xam-xam silsilaan nag euh, jokkoo nañ ak doomam maam Omar Gada Gada Caam benn doom rek la am benn doom bu góor rek la am kooku mu ngi tudd mu ngi tudd Modou Sëtu Caam Moussatou Thiam jamono ji moo nekk ci kër gi ci Samen Santhie man jokkoo naa ak moom ci téléphone mu xamal ma ne góor gi moom rek la am te moom sax xamut góor gi waaye wax nañ ko ne Baye ñas mooy ki yar góor gi kon loolu ci moom suñ sukkandikoo ci la mu ne Baye moo ko yar amaa kañ la judd ak kañ la génn àdduna nag mu ne loolu daf ko bind waaye jàpput ko parce que moom góor gi sax yarut ko yaa ngi dégg Baye jiit leen ki nga xam ne rakk la ci góor gi kooku moo ko yar waaye wax ne danaa ko woowaat dina ci def leerlu dina ma xamal góor gi kañ la judd ak kañ la génn àdduna incha allah rabbi aywa kon su ko defee keroog xool nañ fa hazi salaamun minni ilayka maarihul an barri wa tiibi miska damay wëlbati mboolem woyeeni soodaan ba zahir sadi baatin ba jar di seetaan kon tey dañuy xool eh, li ci topp li ci topp nag am na ixtilaaf bu faam wala wala lenn mun nañ ko wax ne xëy na yàq la mooy sama xaatir dafa roote ji kajoor am ñuy wax sama xaatir dafa roote ji bëxru kajoor biñ defee gëstu nag ci liñ gëstu ci mag je wax nañu ne bëxru kajoor yàq la wax nañ kajoor amul sax bëxru kajoor amul bëxru ana na xam ñenn ñi dinañ wax nag danañ wax ne ci maanaa xëy na bëxru waaye lan waaye dangay xool li waa ji bëgg a wax su boobaa di nga xam ndax booru kajoor ngay jël wala baxaru kajoor ngay jël lan moo waral sama xaatir dafa ji booru kajoor lu waral mu dem ba kajoor lim fas yéenee def moom moo tax loolu soo ko bëggee dégg da ngay dégg da dellu ci bayit bi jiitu mooy damay wëlbati mboolem wóyeeni soodaan te wax nañ ne soodaan ay kañante ci wàllu deret ci wàllu njàmbaar ak yooyu moom moo fi amoon léegi nag loolu la bëgg a def moo tax for foog bi dem kajoor mu ngi mel ni tey ku bëggoon a waxtaanee weñ foog nga dem tëgg ka sa xaatir dem ci tëgg ku bëgg a waxtaanee gàmm sa xaatir dana dem Medina Baye yaa ngi gis loolu moo tax lim bëgg a waxtaane si kajoor mooy kañante taggante njàmbaarante mbëru parce que kajoor dafa nekkoon royaume boo xam ne dafa ràññeeku lool kingdom bu ñu ràññee ci Jolof empire bi la woon ci Wolof empire wala Jolof empire dafa bokkoon ci kingdom yi gën a ràññee mu gën cee màgg gën cee am doole ay dammel jiite ko woon yaakaar naa dammel bu jiitu mooy Desife Njoogu ku ci mujj mooy sambalaw Lawbe Fall ci li history jàngale ñu xamee leen nag ci mbëru ak kañu yaa ngi gis di tiitaroo ñu leen di kañ di leen tagg naan kii garmi la ay bete bete piir la yaa ngi dégg nga déglu léeg-léeg gars yi di ko tiitaroo man ci yax bu rëy laa bokk nga dem ba foofu sax Eh, ñoom ñi nga xam ne ñooy garmi ak dammel yi ñi nga xam ne ñoom ñooy gor yi di tiitaru na ñoom ay gor lañ jàpp na ñooy gor ñeneen ñi ay jaam lañ ñii seen i géwél yu leen di tagg lañ yaa ngi dégg giir gu nekk am seen yelaa maanaam seen buum dañuy tuddee buumu xalam nga xam ne wolof dafay wax ne baadoola baadoola xamul yeelaa yeelaa buumi gor la yeelaa suñ ko waxee gambi yeelaa suñ ko waxee mooy buumu xalam nawul corde bi mais instrument bi maanaam son bi xeet bu nekk rek suñ gars yi ekkatee benn buum bi nga xam ne kii man lay tagg su may maam lay woy da ngay dégg ñu ne buum bi nii ñun ñoo ko moom bii suñ buum la loolu nag demoon ba nga xam ne eh, nekkoon na loo xam ne gars yi dañ ko doon mbëroo waaw ah, loolu nag ñu demoon ba daggal leen ay buumi yeela xeet bu nekk am buumam ñu koy daggoo di ko ko bay jàpp ne ñii dañ gën ñun ñooy géer yi ñun ñooy garame yi ñii suñu jaam lañ ñii te yontu bi salaa salaam wax nañu ne arab gënul ajam ajam gënul arab lu dul ci ragal yàlla mu laal xol bi na taqwa hauna ragal yàlla fii la nekk ci xol te xool nañ aaya bi wax ne inna xalaxnaakum min zakari wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda laahi atqaakum kon nit ñi ñu ngi gënante ci ragal yàlla waaye gënante wuñ ci deret te Baye Ousmane wax nañu ne deret sobe la kum génn ci yow nga laabi ji ay kon su ko defee nga gis ne rëy rëy lu boobu noonu loolu te jarutoon ñu kañ nit jarutoon ñu woy nit parce que dafay yóbbu nit safara te gis na yàlla mu ngi wax ne kibriya aw ak xasamatu yëpp ay biireem lañ képp ku ko sol rek ku xëccoog moom mu tabal la biir safara te ndeyaa si tara dafa wax ne nit ñi dañuy sàgganee li gën ci jaamu yàlla mu ne mooy tawaadoxum mooy nga wàccee sa bopp te yonent bi salaa salaam wax ñu ne wàccee boppam rek yàlla yëkkati kon da ngay gis ne loolu moo waral xaatiram bi dem ba kajoor kajoor dañ leen xamee woon ci loolu ci nguur ci njàmbaar ci kañante ci tàggante ak yu mel noonu moo tax mu ne suma xaatir dafa roote ji ba boori kajoor mu xool nag seen buur yooyu xool garmi yi xool dammel yëpp ñoo xam ne ñoom lañ doon tagg ak xeet yëpp ak kii mu gis ne ñoo ñëpp jaruñoo woy ñoo ñëpp jaruñoo woy moo tax mu ne suma xaatir dafa rooti ba boori kajoor xool ñooñu ñëpp gis ne ñoo ñëpp jaruñoo woy parce que kañante mbiru àdduna la mu ne may woy ki jara woy kan moo jara woy mooy ki nga xam ne moo ñu tuusi ay leer muy bàyyi raddelaan mi nga xam ne moo jëlee nit ñi ci ci réer yóbbu leen ci xam yàlla te loolu moo taxoon yàlla sàkk jaam ñi kon kooku moo jara parce que moo motal mission wu yàlla ci jaam ñi wa maa xalaqtul jinni wal insi illa li yabuduni ibnu abbas ne yaani bi yabuduni yaarifuni li yàlla namm ci jaamu gi mooy ñu xam ko te bàyyi rek mooy ki nga xam ne moo ñëw goreel jaam ñi daggal leen seen seen seen hijab bañ jàkkaarloo ak yàlla kon xaqiqatan kooku moom ki jara way ne moom moo ñu tuuse ay leer te loolu bàyyi ra deelaanoo ko bàyyi wax na ne wa ahlu zamani kulluhum faza raqiyan su ma ñoon jamono ñëpp ñoo yëkkatiku ñëpp ñoo yëkkatiku parce que leer yim leen yëkkati la mu si waa man xalaa na ji bam ba mu des ki nga xam ne moo noonoo suma woote waa siru hawaa yi kooku jaamuk bànnee xam la kooku rek mooy ki texaadi kon da ngay gis ne baay moo ñu tuusee ay leer moo tax mu ne damay wëlba ma suma xaatir dafa roote ji ba boori kajoor may ji woy ki jara woy moo ñu ay leer may géwél bi ci lislaam xamal ma koo doon géwél la nag waaye nekkul géwél bi wayaan ñu koy fay waaye moom ci lislaam lay woyee mu ne bàyyi kon xamal ma koo doon parce que li tax mooy Cheikh Ibrahim ken mun xam ku mu doon Cheikhu Tijaani raddaanu moo ñu waxoon ne sa yabrasu rajulu mina taifati wallahi laa yaxrafu fi dunia wala fi l axiri góor googu di feeñ ci suma kuréel gi nekk na koo xam ne duñ ko xam àdduna duñ ko xam àllaaxira kon bàyyi kenn mënu koo xam moo tax moom it muy dagaan ci bàyyi ne ko may géwél bi ci lislaam xamal ma koo doon kon ma woy la te kañ la yaa doon rabaan kañ nag wolof dafa am baat yu niroote bokkuñ lu ñuy firi am na kañ boo xam ne interrogative pronoun la maanaam dafay laaj waxtu maanaam kañ la xew bi kañ la gàmmu gi kañ la ñuy dem kañ nga ñëw loolu dafay laaj waxtu interrogative pronoun la dafay laaj waxtu waaye beneen kañ bi kañ bii nii dafay firi tagg wala su waxee xarama kañ diw mooy ñu tagg la moo tax mu ne ko kon ma wëy la te kañ la yaa doonu rabbaan rabbaan mooy yarekat bi rabbaaniyati mooy këy këjug rabbaaniyati te yonent bi mooy ayni rahmati rabbaaniyati parce que moo bàyyee ko ci yàlla yàlla jël mbooleem jikko yi jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne adabani rabbi fa ahsana tahdibi yàlla yar na ma te rafetal sama jikko ñëwaat yàlla ne ñu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yaa ngi dégg am na jikko yu rafet yi nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen ngeen war koo roy kon yonent bi moom mooy a rabbaan moom mooy yarekat bi moo tax mu ne ko kon ma woy la te kañ la yaa doon rabbaan mooy yaa doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mu ngi mel ni tey loolu la xool sama xaatir dafa roote ji ba boori kajoor soo xoolee yaa ngi dégg sadar mi mu daane ko ci ra wala r may woy ki jara woy moo ñu tese ay leer mu jeexee ci raatam may géwél bi ci lislaam xamal ma ko doon mu jeexee nuun wala en kon ma woy la te kañ la yaa doonu rabbaan mu jeexee nuun wala en ba tey da ngay gis ne xaafiya woy bi dafa rafet dafa rafet lool dëgg-dëgg ma Omar Gada Gada Caam jàmbaar la woon ci jàmbaaru Cheikh Ibrahim kéemtaan la ci kéemtaanu Cheikh Ibrahim yi kon te ñu eewal foofu incha allahu rabbi di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysir ci barki Baay Usmaan allahumma salli ala sayyidina muhammadin haq qadri muqdar azim ñaana ci yàlla a da na am réewam bi man da réew yu sori yeeg ajam yeeg alale sa géinul ci saayir ak ci baatin bul de waxee sago watul ma baatin sagool ma ñetti jiim yi soo buggee leen jàpp ak julle jàngane mooy taxeen nañ roy ci gaayu baax yi bokko ñu texe roy roylu ak rawante mooy taxa texe yow sa xarit sa xol ma yi ma lay digal sa ngok si kar xaraxe mooy li lay koyal bul tay bul xaate bul de xaajale ku diye paxem te bul de seenale jógal ci yetti waxtu lew yaa sa ngay balu tey màggal ci ñaame mébét jaam jaamu leen seen borom moom moo de buur moom ak borom dun morom te mooy borom ku dun morom borom te mooy borom suñ ko borom moom mooy borom jàlla habibi sama borom moo nu amal moo nu xamal moo nu gënal moo nuy defal kan jaamu kii mooy suñ borom rabbul bariya te fi ne mooy buuri buuri mooy borom yow sa xarit jeexal ñii kii bul geesu ku duul kii moo suñ borom moo borom ci sa taar yu rëy yi lan gërëm moo nu mandal benn wedeen ñu jooy di jeex naan suñ borom xëy di borom cey di borom sëriñ bi mooy bun sa borom borom màggal ko mooy bunta borom xelal ko mooy bunta borom borom bi mooy ngën ji borom nan tuub te màggal sun borom de waadu naan te neen borom Ibrahima ñu wax li le ci tay ba dayul may le yow soo bëggee ngeen ji tere man saa bëgga xam sun borom bakkan bi man maa lay digal yow saa xari lay wun digal baneex bi mooy li lay dugal ci yoonu sa njab sa borom roog bakkan ñoo doon xuloo abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly war ngay sant Yàlla ñun lay digil gëstaloon sidi baram